yee ñu ngi leen nuyu ah yéen ñëpp ñu ngi leen nuyu di leen siyaar yéen tamit di leen masawu tamit ci coono yi metti ci bis bi togg bi yàggoon na yàlla def na loo jàppal dat moom mu ñëw jàppal dat mu ñëw togg bi yàggoon na tey gis nañ public bi mu ñëwee muy si kontaan. waaw kontaan ah ñëpp xam ne Chérifou Diop Sobe moom dañoo am public bu yëngu waaw tey kontaan ci ñu gis Sorano mu fees dell kontaan ci gars yi di seetaan kontaan ci feedback yi woote ñu woo woo ñu wuyu te fiasco moom sant yàlla alhamdulilah sant bu baax. alors comme ni rek ah. yokk jom xam ne liggéey bi boo defoon noonu da nga war a doon deux parce que liggéey bi beneen ci beneen niveau la lay yokk parce que instant tey ñi ngi doog a am expérience yu show bu mag. xam nga bokkut ak ñu lay invité concert ngay ñu ngi doog am expérience bi lu bëri nañ ko noté après ñu noté yenn détails yi gën ci xool dañ nooy faay yi lan la ñu war a yokk pour liggéey bi nekk ci kanam quoi pour man challenge la quoi. waaw kon que lan moo euh, dañuy joob ak orchestre national nag dañu bëgg def ay datu live quoi ko roulé muy gën a ron ñu def ay date yoo xam ne c'est totalement live Euh, bu ko proposé Sénégal bi yëpp ñu dem fu nekk ci loolu mooy projet. yaakaar naa avance waaye dama la lan moo tax dem leen grand théâtre nga ne ma dañuy jëkkee Sorano doog a dem grand théâtre comme ni ko waxee parce que gis nañ ne tey mën nañ ne internationaux si musique yi fii yëpp si musique Sénégal ñëpp jaar nañ fi xam ne mooy euh, théâtre national dañu Sorano waaw Sorano comme ni ma la ko waxee rek moom emblème la symbole la boo xam ne musique bu musicien bu nekk di ngay rêve pour jaar fii ñu am ak collaboration seen directeur yu nice def ko mu jox mu saal bi ko après beneen date bi grand théâtre la doon incha allah te dinañ leen ko annoncé incha allah pour ñëpp xaj ko. jaajëf waaye maa ngi fay di fay presse sénégalaise bi yëpp di leen masawu coono ci journée bi. voilà di rafetlu vraiment collaboration bi am suñu diggante ak yéen donc yéen moom depuis ñu jàpp date ba léegi yéen a ngi sonn gis nañu keroog répétition ñëw ngeen fa assister ko et tout tey aussi euh, vraiment kenn demul ngeen des. voilà ñu leen di nuyu di leen jaajëfal di jaajëfal Sénégal yëpp yëpp commencé nag euh, jaajëfal gi ci Momy Seck Momy sekk soxna sa euh, Bougane borom seen TV borom seen TV donc euh, gis nañ liggéey bu nice bi nga xam ne def na ko depuis deux mois mun naa wax ne ñu ngi def communication bu graaw boo xam ne c'est des millions boo ko jori fi jom sa borom waroon def amuñu ko amuñu budget boobu et tout mais vraiment cofeel ak respect bi dox suñu diggante ak professionnalisme bi nga xam ne moom la ñuy liggéeyee xam ne lii produit bu baax la buñ ci jàppee woon na mun dem moo tax ñu ñëw collaborer ak ñun def ci liggéey bu nice bi di jaajëfal aussi Wally Seck bi nga xam ne frère am la jàpp na ci événement bi bu baax a baax a baax a baax a baax tey waroon na fi teew mais lim nekk yi moo tax vraiment gars yi suñu ko. mais xelam yëpp man xam naa ne mi ngi fii parce que waxtaan nañ ci bés bi te def na ci dooleem def na ci mooninam def na ci xalaatam ak yëpp ay story yi def na lu nekk quoi partagé def lu ne di jaajëfal aussi orchestre national bi nga xam ne ñooñu accompagné ci bës bi ku nekk xam nañ ne ñoom structure bu professionnel lañ du ñu liggéey ak n'importe qui bu ñu wóoluwee Chérif ak Job Suprême c'est parce que am na foo xam ne jàpp nañu liggéey bi am na dayoo bu mu am voilà donc depuis deux mois ñu tëju relevé suñu deux albums mooy li ñun proposé Sénégalais yi nii tey mu nekk journée boo xam ne mbégte la ak bànneex ñu ànd si suñu fans ak suñu famille ñëpp di leen show love vraiment di leen jox cofeel bu baax baax baa a baax euh, euh, yaa Pendo waaye ñu ngi waajal benn affaire bu nar du ma wax rëy mi quoi mais bu nga bu nar a ngandee <laughs> bu moom am na am na dafa am style am daaj comme xoon nga am ay feeling yu ne ci moom en plus mu jege ñu nekk suñu xarit nekk suñu jigéen des fois day wax ne Sénégal euh, Chérif ak Diop Sa Brain maa leen njëkk a gëm bi leen kenn gëmul laa leen gëm donc euh, voilà donc mi ngi noonu te yàlla def na vraiment firnde bi am na je crois que ni featuring boobu kon lu jaadu la quoi li naan bu doon làmb la tey euh, amateur yee ko soxla. ay ay ñu ngi may ah, euh, hmm. waaw. Ah. Euh, ñu nag. waaw Subatel ah, ay frère lañ Chérif ak Diop Sobrani ku ne xam na ne maxu dafa am rôle bu deewaar bu mu joué ci suñu carrière même bu dee fësul ci biti. donc euh, day ñëw suñu studio dañuy dem këram dañuy partager ak ay artistes am ci ay top line ak yeneen ak yeneen donc am na benn coloré boo xam ne seex nañ ko ak ñoom. donc euh, bu fekkente ne Sénégal gisaguñu Chérif ak Youssou Bène ak suba teel liggéey parce que jotagul mais loolu moom mënul ñàkk quel que soit day am quoi voilà donc. Euh, amul benn quoi dafa jotagul. jotagul quoi bon xam nga ay artistes la ñuy def carrière carrière mun na dem ba 50 ans def nañ deux albums kese deux albums bariwul du dara ay yeneen album day ñëw donc bu kenn yaakamti promoteurs yi soxla Chérif Diop Brain du Sobatel kese bari nañu. bari nañu bari nañu. sa dépend ci proposition yi sa dépend ci proposition yi ak orientation yi nga xam ne moom la ñuy proposer ci produit boobu ñu war a liggéeyee quoi parce que gérer ñu ci carrière du yomb bu ñu yegg suñu label et te vraiment structuré nañ ko te ñi ngi am ci benn chemin bi ñu taxaw mais mun nañ collaborer ak label loolu label da koy def label ak label dañuy collaborer ñu liggéey ci benn projet comme xam nga lépp day dépendre rek ci euh, vraiment ci modalité yi naka lay demee tout loolu bu amee rek bu ñu ci déggoo mën nañ liggéey ku nekk loolu problème waaw Mm. C'est cool, hein? Okay. Yeah,